di leen sant ndaxte tey lii événement bi ñu def ndaw ñi xamante ni ñoo nekk Siggi Jotna ñoo ko initié ni tey dinañ la wan ñun li ñu mënee si parrainage bi doon la si xaar moo tax tey ñun li ñu joxoon si ay fiche remplir nañ ko feesal nañ ko bu yàgg donc ñun waxatuñu lancer parrainage mais li ñuy wax mooy naka lañuy def ba falaat président ma Macky Sall donc prépare commencé nañ suñu campagne donc ndaw yi. maa leen di gërëm di leen remercier ci seen engagement bi nga xamante ni moom ngeen am derrière moi derrière moi Modeste Personne vraiment gis naa taxawaay bi te loolu kat pas-pas bi ngeen am ak gëm-gëm bi ngeen am par rapport li nga xamante ni moom la fi président Macky Sall teg donc maa ngi leen yi sant bu baax di leen gërëm tey li ngeen organiser nii dafa am solo mooy randonnée pédestre parce que tax nañu tey nit ñi mën a def ay activité physiques lancer ci waa benn thème bi nga xamante ni naka la ñuy def ba xam lan mooy jabet donc je pense que tey jeunes yi waxtaan nañ seeg askan wi au moins ku si nekk boo demee sa kër di nga am loo ci jàng donc loolu mooy social parce que président Macky Sall dafa woote ni année bii da ngeen def ay action sociale moo tax war nañ chaque orga war nañ def benn don de sang bi nga xamante ni dinañ participer a renforcer la banque de sang bi nga xamante ni am na ay manquement donc tey de mouvement si ñu jot na dina si indi partition donc war nañ koo def midi 19 mais tey dama kontaan kontaan gi ma kontaan mooy dama am samay gan bu am solo ñi nga xamante ne tey li ma booleeg ñoom mooy sopp gin ma sopp naw gin ma naw te wanuma leen lool nit su waxee sa mbaax c'est parce que moo la gën a baax donc tey qualité yii responsable yi wax fii yëpp ci man dama koo fekk si ñoom parce que ñu mën a nekk rek ñooy ànd ñu bokk ay jikko ñooy ànd donc suñu sœur suñu xarit Adja Ndeye Tické Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm sa teewaay fii sa teewaay nag du dara lu dul bëgg cees lu dul bëgg président Macky Sall parce que yow bu ñëpp xooloon si yow donc kenn du xiiroo kenn du ŋaayoo chaque jour unité ngay woote chaque jour jàmm ngay woote te liggéey bi ngay liggéey si ndaw ñi liggéey bi ngay liggéey si jigéen ñi dafa am solo donc ñu ngi lay remercier si loolu di si encourager te xam ni lii nga nekk man ànd naa seeg yow te foo ma woo dinaa la wuyu ndaxte kat unité bi ngay wootee ñun moom la ñuy woote mais aussi mention spéciale le ministre Maguette Sèye donc nit koo xamante ni dafa toog di wax sa mbaax te xamu la te gisu la donc kooku kenn amul fayam te lépp lu muy def aussi c'est renforcer la massification du président Macky Sall fu mu gis ne nit taxaw na fa pour jàppale la président Macky Sall dina bàyyi li muy def yëpp ku ko gis xam ne amul jot parce que c'est un ministre conseiller spécial du président de la République donc fu président nekk ba nga fa taxaw mais tey su ma xewlee du ma ko soog woo seen SMS SMS rek ñi toog fii yëpp SMS lañ waxante ñoom ñëpp ñu ñëw teew donc tey lii mooy Thiès lii mooy APR ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi xiiroowuñu ŋaayoowuñu li ñu bëgg rek mooy ne président Macky Sall am ndam ndaxte mooy suñu yaakaar ëllëg parce que projet yi mu fi teg réalisation yi mu fi def bu ñu ñàkk fayda wala ñu ñàkk chance ba koy bañ a falaat parce que loolu bu ñu ko defee mooy. la ñu investir yëpp di ko perte te je pense que tey Thiès tourné nañ le dos war nañ ginnaaw ñi nga xamante ni wax rek lañ fi nekk du ñu jëf parce que le président Macky Sall kat koo gis xam ne président action la jëf rek lay def kenn gisu ko mu wax kenn gisu ko mu xiiroo kenn gisu ko mu ŋaayoo ñun nag ay jeunes la ndaw des jeunes d' action ñun kuy gis xam ni si action rek la ñuy def mënuñu waxee liggéey la ñu xam ak jaamu yàlla ak dimbale askan wi donc tey ñi taxaw fii ñëpp. di samay xarit di samay naataango loolu si loolu la ñuy liggéey si loolu la ñuy jëfe donc ñu ngi ñaan ñëpp ne na ngeen gën a booloo àndandoo nekk benn pour que ñu mën a jox le président Macky Sall ndam te loolu yaakaar giñ ci am mooy la jeunesse mooy les primo votants ñu nekk fii ñëpp kenn voté wu ci woon 2012 mais tey sama jeunes yi bi ñu ma wanee les fiches yu ñu rempli si parrainage bi sama xel dal na donc la jeunesse maintenant sont conscients xam na ni tey vraiment le président Macky Sall c' est le président de l' espérance c' est le président de l' donc ndaw tey sas nañ leen la victoire du président Macky Sall repose sur vos sur vos donc tey yéen leen sas lii donc àndandoo leen booloo liggéey derrière la coalition Benno Bokk Yaakaar amul xiiroo amul ŋaayoo amul mouvement Ablaye Dieye amul mouvement Ousseynou Diouf amul ñu ànd ak Ndeye Tické Ndiaye ñu ñëpp benn lañ on travaille dans l'unité donc maa ngi leen di sant di leen gërëm mais aussi tey dama am invité spécial ki nga xamante ni tey c'est ki yor mouvement Aar Sénégal donc ñi ñoo xamante ni liggéey liggéey bu am solo fii fii ci Thiès donc tey ma convié ko mu ñëw si sa sam ma rànd na ñu war a àndandoo liggéey dans la cohésion dans la solidarité et dans l'union donc madame ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ak sa collaborateur yi nga àndal di monsieur Diop seen xalaat rafet na seen taxawaay rafet na kontaan nañ si te tey lii mooy politique politique da ngay boole ñëpp tey ñu ànd ak président Macky sàll ñëpp war na nañoo booloo nekk benn te ñëpp a ngi si ñëpp a ngi si dynamique boobu maa ngi remercier aussi le ministre Augustin Tine bi nga xamante ni tey il m'a appelé woo ma félicité ma par rapport à cette activité là dafa am empêchement moo tax ñëwul y'a aussi moo frère Abdou Mbow bi nga xamante ni aussi il m'a appelé woon na ni tey dina fi teew mais aussi damay jox mention spéciale le ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye ki nga xamante ni tey teg na ma loxo mu ngi ñuy jàppale di ñu déglu parce que base bi mu amoon fii yëpp cees mu ne moom Thiès liggéeyu fi Thiès voté wu fi mais am na ñoo xam dañ ko fee sopp boole na ma ak ñoom pour ñu liggéey donc je pense que loolu mooy doole nañu renforcer ñu àndandoo di liggéey donc vraiment ñu ngi koy remercier ah, te loolu ñu ngi si euh, ñu ngi koy jaarale si suñu yaay ndey Adja Mati Ndiaye bi nga xamante ni moo fi nekkal nekkal fi jolof jolof yi ñu ngi leen di remercier bu baax par rapport à ça di remercier aussi sama sœur bi nga xamante ni mooy madame Thiam di directrice euh, directrice Claudel tey envoyé yenn fi sa jeunesse ndax ndax man ku ma xam xam ni euh, euh, jeunesse bi ma ñor étudiants ay ñoo ma ñor chaque année dinaa leen taxawu dinaa leen jàppale moo tax moom mu naw li may dimbalee étudiants yi ba tax tey fu ma nekk mu envoyé fa euh, ay nit pour ñu ñëw taxawu ma donc vraiment daal ñu ngi gërëm ñëpp mais di gërëm encore le mouvement Siggi Jotna ñëpp ñi nga xamante ni tey ñu ngi siy liggéey def ci seen force def ci seen i doole pour que ñu mën a am ndam mais nañu yëpp on travaille ensemble on gagne ensemble donc loolu dafa am solo te incha allah dinañ gagné président Macky Sall dina am ndam parce que président bu amee ndam ñëpp am ndam donc ensemble nous gagnons incha allah maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. kii yóbbaale li mu wax on ne peut pas dire plus on ne peut pas dire mieux euh, lii c'est une preuve ci lan unité bi am dans le camp. présidentielle, nous sommes tous unis, mais dans la main, pour travailler pour la victoire du président Macky Sall le 24 février 2019. kii ci àndal qualité yi euh, Adja Ndeye wax ci moom moo nekk ci moom humilité modestie efficacité efficacité mooy gagner le président Abdoulaye Dièye il a gagné son centre de vote c'est ça l'efficacité il est efficace il est humble lii mu réussi wax naa ko ko léegi c'est extrêmement difficile la jeunesse mooy fer de lance ci loo mën a jël nee naa ko sànq lii nii je pense que lu ñu war a capitaliser la pour am véritablement les volontaires pour la réélection du candidat Macky Sall basé ko ci jeunesse bi et je pense que ni lii dinañ ci ànd liggéey euh, Ablaye koo woo dina ñëw ndax say qualité je euh, bi may commencé di wax ci yow xamuma la on s'est jamais rencontré mais dama dégg loo def rek koo àndal ci sincérité nga ànd ak moom koo àndal ci ngor nga ànd ak moom moo waral lii nga am tey il faut continuer dans cette dynamique continuer dans cette lancée je salue mon frère Ousseynou et je salue toutes nos sœurs et tous les jeunes qui se sont mobilisés ici pour non seulement lii Ndeye Tické di wax léegi vulgariser davantage le euh, parrainage mais ci aussi euh, léegi nii le garson faisait des annonces extrêmement utiles qui xeex contre le diabète et les maladies non transmissibles c'est extrêmement utile et je pense qu'il faut être utile pour euh, la population Ablaye candidat bi ñu àndal ni nay di wax c'est le candidat apte mooy le candidat de l'action mooy le candidat du pragmatisme mooy le candidat du travail mooy le candidat de l'émergence Macky Sall mooy le candidat apte mu nous sommes avec le président. Lol lañ and ak yow bëgg président bëgg Thiès. Nous serons toujours avec vous. Merci beaucoup. Commencez ko ci ministre Mabio Sène, Ndeye Tiki Massar, Mati Ndiaye, Fane mais particulièrement Ablaye Dieng bi nga xam ne tey moo waral bés wax ne lii c'est un exemple Ablaye est un exemple pour la ministre Soir fii la juddoo fii la màggee fii la jàngee dem Dakar nga fekk kenn jàppaloo ko ba créé société ñëwaat jël ay doomu Thiès tuuti Thiès. tey bu ñëwee di ànd ak président Macky Sall comme ni ñu ko defee ñun ñëpp c'est jàppale jeunesse su Thiès parce que Thiès dañ koy yàgg wax biir rebelle ëllëg ci xew ànd ak président de la République Macky Sall bi nga xam ne dafa taxaw pour defar Sénégal yéen waa Thiès yéen waa Sidi Diop la dama bëgg ngeen jàppale Ablaye bu baax ci fii mu dëkk ndax li muy def yëpp nit bu amee benn li ñu ko koy waxee bu ñu amee bu ñu leen taxaw ko kenn waxatu ko Thiès dañ ñoo yàgg a bàkkee ay jur réel loolu lañ ko baax nañ ñoom jub kenn ku ci nekk demul jub yëngu dugg sa biir kër def ci say mbokk pare na le président de la république te bu ñu nag ci parrainage après parrainage bi politique bi déglu bu kenn bàyyi ndax boo leen bàyyee rek naxekat yi jaar nax leen wax leen gëmloo leen mu mënta nekk jàpp leen ci ba 2019 incha allahu rabi ñu faraat son excellence le président de la république au premier tour et sans yaakaar naa loolooy message bi di félicité waat ñi fi nekkoon ñëpp wasalaam merci beaucoup. ci turam ak santam di jox ku nekk wàccuwaayam waaye nag maa ngi jiital ci nuyoo bi ki waral bés bi wala ki waral xew-xew bi muy kan muy le président de Siggi jot na ñu koy wax. El Hadj Abdoulaye Dièye El Hadj parce que du ko fàtte ndax ci loolu dama koy jox benn clin d'œil pour que ci nii mu boole ci ñaan ndax bu mu jógee fële yàggul ci gëf nga xam ne ñun ñëpp la ñu yaakaar kon bala ñu fi jóge boole nga xam ne li mu war a ñaan lu mu doon monsieur le ministre euh, Maguette Seye notre frère ñu ngi koy nuyu dafa ko jox wàccuwaayam ku nekk ci dërëm ak santam nag wax ji moom xam naa ne du gudd dafay nekk euh, félicitation d'abord parce que nag lii yombul woote nii ñu gis affluence bi dama lay féliciter monsieur le président vraiment du fond du cœur parce nag ku gis nen ne nen a ngi nii kon nag lii du mbooloo boo xam ne dañ koy xeeb mbooloo bu ñu naw la te li nga am yëpp génnul kon xale yi tey njukkal nañu la ma leen ci remercier noonu la parce que nag bu fekkee ne nit dafa nekk ak yow di defanteeg yow lu baax ku mel ne Ablaye ma ne bu xewlee lii da ngeen a war a génn damay dem rek ci lenn di paraphraser ku ñuy wax Edouard euh, Latouf dama ko gis keroog ci le partage de l'info mu ne un homme disponible il dit aussi un homme généreux courtois mais lu ci des loolu la ñuy nawee nit et humble loolu rek a fi nekk leneen nekku fi donc loolu yëpp day attribut yoo xam ne dañ ko fekk ci le président du Siggi Jotna du mouvement Siggi Jotna muy Ablaye Dièye te man ku am loolu ak fonk bi nga xam ne que def ko boole. fonk que le président de la république di ko nag guddeel di ko bëccëgal ci li mu yëg nag parce que yëg na ko jël yëpp di ko def sans calcul je peux le dire nous ne pouvons que encore le félicité et le remercier lii tax mu di ko def. yal na ci am ndam te daf ci am ndam ndax parce que c'est sincère parce que aussi c'est volontaire parce que tam daf ko def ak humilité daf ko def ak détermination def ko aussi ak persévérance parce que ku nekk xam na ne le terrain politique yombul donc boo ci nekkee te gestuwuloo boo ci nekkee te delluwoo gannaaw dañ la war a njukkal tey nag ki tax nga di ko def ci lay wax léegi parce que ki tax nga di ko def daf ko jar bépp sénégalais war na ko njukkal muy kan muy le président de l'espérance vous l'avez dit tout à l'heure muy kan muy le président du yaakaar muy kan muy le président de l'émergence donc muy li ci des dama ko koy bàyyee moom le président waaye ci parenage bi lii def ko def rek pour wane ne mi ngi ci biir waaye lancé na bu yàgg li nga xam ne que ne mi ngi ci mi ngi ci woon fii waa Thiès dama bëgg ngeen ñeme parce que ñeme ngeen sax ñu dolliwaat que ñi nga xam ne que ne dañu nekk ci mouvance présidentielle bi parce que li ñu nekk dañu ko gëm te parrainage bi li ñu war a am au niveau de Thiès am nañu ko dañuy yokk kay waaye amul benn jiixi jaaxa parce que maa ngi suivre chiffres yi li ñu war a am am nañu ko li Ablaye di def day gën a yokkaat Maguette di yokkaat Ousseynou di yokkaat ñi ci ginnaaw di yokkaat ñoom Mati Ndiaye tout le monde kon nag parrainage parrainons le candidat de l'espoir parrainons le le meilleur candidat le meilleur le candidat au meilleur profil donc ci foofu laay yem di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax laal président kontaan naa je te remercie tu es mon et ça c'est du vrai merci. merci. Je remercie la jeunesse de Siggi Jotna pour cette belle initiative qu'ils ont organisée aujourd'hui pour nous permettre de communier avec la population thiessoise. Mais également, je voudrais remercier tous les responsables ici présents. Je peux nommer le ministre Maguette qui est mon ami et frère. mais aussi euh, ma sœur et amie intime, la directrice de l'ANAM, Madame Deitike Ndiaye, ici présente. Mais aussi tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar qui n'ont pas honoré de leur présence, c'est parce que ils ont d'autres préoccupations aujourd'hui et ça nous on le comprenons parce que si un responsable est présent, je pense que il est là pour tout le monde. Donc je voudrais vraiment les remercier de m'avoir, de m'avoir rehaussé de leur présence à cette activité qui nous réunit en ce moment, qui est une activité de randonnée pédestre qui rentre dans le contexte social que le président Macky Sall a décrété pour l'année 2018. Donc je pense que le mouvement syndical là, c'est un cadre qui répondent aux préoccupations de la population thiessoise. Donc ces actions sociales sont des actions qui soutiennent sa Donc euh, nous sommes vraiment dans cette dynamique de s'inscrire sur cette démarche sociale que le président a décrétée cette année Donc ce rendez-vous PDS a été utile. Donc je pense que tout chacun ici la sentit parce que nous sommes essoufflés et aussi nous sommes en sueur. Et ça, ça fait partie de la bonne santé. Donc j'exhorte la population à pratiquer la marche parce que c'est une chose très importante parce que ça nous permet vraiment de vaincre certaines maladies comme le diabète. Donc notre jeune tout à l'heure a donné des orientations pour éviter d'avoir le diabète. Donc c'est une sensibilisation qu'ils ont fait. Donc je vous remercie de cette, initiative, de cette belle initiative. Aussi, nous avons profité de cette occasion pour lancer notre parrainage. Et ce parrainage-là a été l'initiative des jeunes de Sibidion. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons compter sur la jeunesse saine. Parce que Thiès n'est plus une jeunesse malsaine. Donc ce corset martial-là a été, er-, a été éradiqué. Maintenant, il faut penser à une jeunesse saine, à une jeune qui on peut compter pour l'espoir de ce pays-là. Et là, je pense que le président Macky Sall a des ambitions claires pour que le Sénégal puisse être un pays émergent. Et là, il se focalise et se fonde sur la jeunesse du Sénégal. Donc je remercie

pour qu'on puisse donner la victoire à notre candidat utile, à notre candidat de l'espoir, notre candidat de l'espérance, comme l'a dit notre sœur Deïti Kenyaï, le président Macky Sall pour un Sénégal émergent. Donc je vous demande de continuer sur cette lancée-là, d'avoir le maximum de voix. On a atteint notre quota, mais on va continuer de parrainer, de sensibiliser pour que le président Macky Sall puisse savoir qu'à Thiès, Thiès a tourné le dos à la politique Thiès a tourné le dos aux vendeurs d'illusions. Maintenant, nous sommes là pour montrer que Thiès a un nouveau visage. Et le nouveau visage, c'est le président Macky Sall. Donc nous allons l'accompagner pour le réélire au premier tour au soir du 24 février, Inch'Allah. Et là, j'appelle encore à l'unité. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'unité est déjà scellée. Parce que si on voit tous les responsables qui sont ici, on voit que l'unité a été scellée sur, pour tous les responsables de la coalition Benno Bokiaka. On continue sur cette démarche. Inch'Allah, nous prions. Et encore, je reviens de la Mecque, j'ai beaucoup prié pour que le président Macky Sall au soir du février. Parce que c'est ça la réalité. c'est ça ce qui nous permettra de développer notre pays parce que c'est un président visionnaire. C'est un pays président qui a beaucoup d'ambition pour ce pays-là. Nous l'avons constaté parce que nous partons en voyage, on voit que tous les investisseurs maintenant mènent vers le Sénégal. Donc un, un président qui a cette ambition-là, qui, qui est visionnaire, tout le monde doit l'accompagner. C'est un président de l'action.